sama bopp sama pap bu muy génn àdduna sax doon na te kaw bi ma génnee fii laaj ko sama protocole ndax benn kàddu la sula boo xam ne gënuma woon ci jigéen bu ñàkk doom def ne elle m'a parlé en une phrase en français mu ne ma comprendre naa maa ngi mun premier jour yi dama def ma métti woon man may toog du ma gis sama néew doom pour ma dem denc ko defal ko ni ma ko bëgg waaye dama xalaat xam ne bu ñu jiitu woon mois de mars xalaatoon ni man def ni man amaana sama doon du dem mooy lan sañ naa mun ci te jël naa décision quelle que la durée que ça va bu dee dina am ñu jóg pour dimbali ñu ñu xamal na nga def lii yoon dal seen kaw ndax autopsie lu mu laaj waxtu mu laaj ñu jox ko man pare naa pour séddale loolu waxal ma ko président Ousmane Sonko bi ma génnee fii dama jox kaddu boobu moom ma gën a métti sax li am. moo tax man ko koy di ko ko jaale di ko wax ne ñun suñu dégg ne loolu la président Sonko ne woon il faut ma wax leen ko ngeen dégg ko ci olof lii moo tax je vous remercie tam président en principe dañu waroon jox li nga xam ne ñoom ñoo ñëw jaale bi Euh, mais comme Wadi, il y a de famille dina am doléance nous tax dañuy jox famille ba pare ñu jox leader de alors je m'autorise à prendre moi-même la parole je me nomme Jean-Michel Coly je suis là sous beaucoup de casquettes alors je suis d'abord le président de la communauté ecclésiastique de base de Kaolack dont sa maman elle-même fait partie Ensuite, je suis le porte-parole de Gurokal Tamari. Et quand je suis Gurokal Tamari, c'est parce que malheureusement, nous n'avons pas de Alors, ce gosse-là qui est parti, qui fait partie des très bons défenseurs de Tamari. On n'attend personne sur le travail. On n'attend personne. Donc, je suis là sous ce nom. Ensuite, je suis aussi le représentant, le coordinateur communal du PRP et aussi le porte-parole départemental il y a euh, Passalou qui est là. Je salue vraiment tous les membres. C'est avec un sentiment vraiment mitigé que je prends la parole. Je vais pas être non. Mais aujourd'hui, il y a d'abord la satisfaction de voir nos différents leaders qui sont là. Mais il y a ensuite la tristesse qui nous anime. La famille là souffre. Elle souffre. Cela fait maintenant plus de deux semaines qu'on est là en deuil. C'est pas facile. Il faut prendre en charge cela qui vient ici. Que a une rêve dit. Ce c'est pas du tout facile. Le poids est là, mais ce qu'on réclame, même les jeunes du quartier sont là, très déterminés, et en plus en colère. Ça, il faut vraiment le dire. Parce que la façon dont on tire sur nous-mêmes, comme des lapins, il faut que ça cesse. C'est pas possible. On est dans quel Sénégal Nous sortons pour manifester avec seulement les mains vides. Nous ne portons pas d'armes. Alors pourquoi ils sont là, les gendarmes, qui tirent sur nous. Il faut que ça cesse. Là, jusqu'à présent, on ne nous donne aucune information concernant la dépouille euh, de notre frère. On voudrait vraiment être éclairé par rapport à ça. L'autopsie de la justice fasse son travail. On réclame justice. La mort là ne sera pas vaine. Non, c'est pas possible. Ce petit-là, on ne va pas l'enterrer comme ça. La fois d'œil, ça suffit. Il faut que ça cesse. Merci. Je ne veux pas me répéter, mais vraiment, nous réclamons là depuis et M. Khalifa Sall, l'étier, euh, euh, son corps euh, à Donc, euh, vraiment, ce qu'on attend de vous tous, c'est que vous fassiez vraiment le travail, vous portez le combat, vous pouvez porter un combat mieux que nous-mêmes. Parce que nous n'avons seulement que le micro pour dire ce qu'on a à dire. Mais peut-être vous avez plus de capacités et de possibilités pour la famille. Donc, ce combat, c'est votre combat. Ce gosse, c'est le gosse du passé. Toutes les manifestations, il ne reste pas ici. Les dames. Malheureusement, il y a le niveau de mais a rien. Moi, vraiment, je vous dis merci pour ne pas vraiment être long. Les gens, Yankouba et autres, là, ils ont tout dit. Allez-vous. Donc, euh, je passe la parole à son frère. Il va rapidement donner un mot. Ensuite, on va terminer avec la maman et je vous donne

trabalho kita temos Di de turma também. Mana kime wa suara Ah. Dore dore sala

asalaamaaleykum maa ngi nuyu ku nekk turam sore lu ma dem, démb dem, démb ak démb loolu lay waxaat tey Abdou ñun ëppalewuñu leen yàlla

maa ngi leen di wax merci maa ngi leen di wax merci jërëjëf waaw depuis bu dëj bi amee ba tey soo ko mi ngi yónni ay nit fii surtout madame soo ko jógewul fii benn yoon ak kii wax nii léegi ñii ñëpp toog gën a ñëpp ñu dañ kon ñu ngi leen di gërëm famille baa ngi leen di gërëm ñu gërëmaat ñi jóge depuis Dakar ba fii ndax yàlla te lu dañ jàmm ak salaam ñun ñoo moom doom ji ko United Osumahol Mukirim lain lain guru mas Voilà, merci. On donne la parole au leader.

ab Ablaye dafa symboliser liy Sénégal li nga xam ne moo am ci njaboot bi moo am fu ne muy doomu jullit doon doomu di ko sant yàlla parce que loolu mooy réew mi ñu trop nag parce que bu ñu naqarlu li dal Ablaye mbirum yàlla la te yàlla su dogalee jaam bi su ko nangoo day gën a oyof ci moom surtout que Ablaay ni ko yàlla jële jëlin bu rafet xale bi wax na ko léegi dafa nekkoon di xare ngir askanam di xare ngir ëllëgam

Cheikh na Tidiane Dièye nekk fi Déthié nekk fi Habib Sy nekk fi Moussa Sy ak président Ousmane Sonko ñooñu ñoo ñëw jël ci seen wàll te li ñu yàlla teg yàlla yàlla moo ñu ko teg ak ñoom maa ngi su ngeen xoolee mu dund di loolu di am da leen di wàññi li ngeen dund moom la ñëpp di dund moom la réew yi di dund moom la askan bi di dund donc bu leen am lu leen naqari au contraire nañu ñaanal Ablaye parce que Ablaye est un c'est un vrai martyr réew ma ko bi mu leen di tàggu kenn ci yéen jotul woon ne dootu leen def li ko soxla dañ koy nangu mu oyof suñu teewaay fii nag tey dañu ñëw woy rendre hommage xale bu am mérite xale bu am njom xale bu gëm askanam xale bu bëgg woy njuróom xale bu bëgg réewam bëgg Tagore bëgg Bignona bëgg région de Ziguinchor dañ ko rendre ci hommage nekkee di jooy yàlla danaan ñii kat gëmuñu li ma defar sama jaam ji parce que ñoom ñu bari lañu woon moom la ci tànn keroog am na ku ko wax léegi le conseiller là au nom de wayam dootul fay ko abadan xare <coughs> terrain xare la Ablaye demee doon ci ñun da ngay ñaan demee ñuy mel parce que dañ lay woy ba faaw c'est un martyr mais c'est surtout ñi def jëfin ju ñaaw loolu ak ñi santaane jëfin ju ñaaw ñooñu ñoo am kersa tey am gàcc moo tax maman ñu nga sa boobu muy jooy gis nga fee mu tëdd àjjana doo nga lay yeewoo incha allah yàkkam ci ko jox boroomam egg na ci boroomam bu yàgg parce que dañ ni xol ak xel yàlla ni rek les problèmes loolu la gëm loolu lay ku ne mais lii ñu wax ni moom la way juróom wax bu jigéen ñu di ko massaw yow mi maanoon ñu di la ko massaw loolu mooy liy dëgg li war mooy li nga xam ne moo daal Ablaye waratul daal kenn fii ci tàngoor wala ci dina wala ci Casamance wala ci Sénégal di nga su ngeen nañ ko suul ëllëg keneen foofu te kenn du xam ne mu dem metti na diis na jafe na mais dañ leen di ñaan ngeen seen xol pour que dëgg si feeñ parce que ñi Ablaye nekkaloo ñëpp gis nañu li ko tëral suñ ne dañ ko jàmpaaka wala lañ def leneen kontaan naa la am nga nuru leneen il faut que dëgg gi feeñ gis nga suñ ko defoon di keneen kum fi dalaat moo awaat na mu awa kon dañ leen di naan ñaan ngeen moom seen xol ngir dëgg gi feeñ pour que beneen Ablaye Diatta dootul am fii ci Casamance wala ci Sénégal il faut que ñi nga xam ne ñooy xool xale yi di leen dóori bal mais ni ku yori njombar wala ataay kuy na pokka sàmm il faut que loolu dakk ci réew mi te li koy dindi mooy noot leen seen xol Ablaye dem na àjjana ba pare parce que nekkul woon ci yifu seytaan nekkul woon ci lu jaaduwul nekkul woon ci li dafa doon jaamu yàlla parce que xeex ngir sa askan jaamu yàlla mais dañ di ñaan ngeen nangul ñu loolu parce que yëf gi dootul seen bos. si nga ñuy dalee Sénégal gépp ngeen ko bokk. parce que n'y a pas ne naqarlu li nga xam ne moo leen daal nous ñu daal moo daal nous. en tout cas nous bëgg rek ñu santaat yàlla et qu'on soit en union de prière pour que véritablement la mémoire de puisse être préservée que son honneur sa crédibilité puisse être préservée qu'il soit posé en modèle pour toute la jeunesse de ce pays xam nga li président moom dafa rafet léegi dafa ni suñu waraan doon dellu tool xale daañu dellu tool loolu la góor ak jullit ak ku yàlla di def moo tax ñu ngi ñaanal woy juróom bu jigéen ñi di ko massaw mais di parce que moroomam yeeg magam ji nga xam ne mënul wax fii xam nga loolu parce que fees na yàlla na leen yàlla wuutu ci am naa yal na leen yàlla wuutu ci am naa ñu di ko jaal waa tàngoor yëpp di ko jaal waa Bignona yëpp di ko jaal Ziguinchor yëpp di ko jaal euh, Casamance yëpp di ko jaal it njiitam muy président Ousmane Sonko parce que wax nañ ni Pastef la nekk mais Ablaye nekkuloon Pastef askanu Sénégal yëpp la doon xeexal yal na ko yàlla fal yàlla na fekkee àjjana firdaws tànk yi daal tànk loolu la du masawu leen mais pour wax leen ne lii ngeen di dund mu diis mu jafe yéen ak Sénégal yépp ko bokk seeni rangooñ ak suñuy bos a mais nañu mun rek na dëgg di feeñ mooy jël serment ni ñun ak yéen ñooy ànd fexe ba dëgg di feeñ daañ dem contre interdit lu mu ñu jaral danañu ko jaral mais incha allah dina feeñ parce que suñ nee dañ ko jàmm paasal xanaa ba ñoom fa nekkoon a ko jàmm parce que dañuy tuuma ña fa nekkoon ak ña mu nekk loolu wax day rafet mënoon nañu wut leneen lu dul lool loolu dafa ñaaw ñëpp gis nañu biñ ko jàppee mu naan damay dee ak moromam ñu naan ko doo dee. nga ci terrible sax nga bëgg wax leneen lu dul lool. di masawu képp ku fi gaañ di masawu ki fi indi léegi en tout cas ak Pastef ñun ñëpp yéegi askan wi daañu jël li ñu amat lu ñu amoon lu ñu mën a lu ñu mënoon pour que ku fi gaañu ñu jàppale la ñu di la sàkkal parce que loolu mooy li war parce xale yi fa demoon demuñu ko ngir seen bopp. dañu demoon ngir yéene dañ demoon ngir yaakaar en tout cas yàlla nañu Ablaye dëddu jàmm yàlla na ko yàlla xare ak ci yëpp ñu koy suul lépp ko nit mën ñaanal na ko ñaanal parce que na ko jiitu ci bàmmeelam te cat bañ ko jiitu ci bàmmeelam maa ngi leen di gërëm di leen sant seen mbokk seen seen mbokk seen nawle ñëw tey bokk ak yéen liggéey bi mais kenn du ko ou sa bopp bu nekk da nga koy masawu sa morom Thank you.

Mais de l'autre côté. Il faut bien que le métier. Il y a une lettre où il y a un frère qui est là. Il faut c'est nous le sachions. Il que, quelle que soit la cause, parce que la cause du monde, on est le seul dans l'église. Mais quelle que soit la cause, tentang kekurangan di jilid di katolik di tradisional mendenyo gumni tuti aramini ajib tetelu gumni pakan ini sakit jumlahi créer définir le le temps que tu vas passer sur terre bu temps boobu jotee amul lenn Amun ci mën ton nom, temporaire. Comme les manifestations il est mort sur le lit d'hôpital, il est mort dans un accident de Jakarta, il est mort par balle. le manifestation grecque. Mais su yàlla tuddul woon ni keroog bi mu koy sàkk nangami at la fiy dund la fiy dund te bés sàngam la fiy jógee ko yàlla tuddee noonu kon tey mi ngi nekk ci la preuve bëri ñu mu àndaloon keroog te certains sont certainement ici peut-être sax ñoo ko jiitu woon nekk ci kanam te lii ko dal daw kon delloo leen ni yàlla waaye du li nga xam ne mooy sabab bi nag ñu war koo topp mat et c'est pourquoi je voudrais ma adressé au Sénégal parce que jotaay bii ñu jàpp ni dafa tënk rek dafa tënk ci nit ñi beneen liñ ci wax yëpp ci leen ngoon boo moytul àdduna bi yëpp dina ko gis moo tax dëgg la ci dëj lañu ñëw waxtaan nañu ne yàgg na boo gisee ba tey leaders yi ñëw ñu woon mooy ci suñu aada dans nos traditions dans nos traditions d'habitude duñu dem jaare ji tant que dencuñu néew bi moo tax ñu jàppoon ni dañu xaar tuuti kon tant que tey

mooy wax ak Macky Sall ndax gisuma bërëb bu gën bi ñu toll nii pour wax ak moom wax ni dañu war a nangu ñun ñëpp ni Macky Sall a problème avec la Casamance et Casamance

stigmatisation boobu ëpp na te musul am dund nañ fi crise de 1982 à maintenant bu jamono joo xam ne crise bi métti woon na trop nit ñu màggee fii daanoo toog vingt quatre heures de déggu armi tàkk waaye Abdou Diouf mi fi fekkoon ba Ablaye Wade mi ci fekk tuuti à mondiale de Komoussa, c'était privatiser toute une région. Rawatena Rifedi. C'est avec Macky Sall que ça a commencé. tey bu ñu jàppee ni wax ma fi Casamance mais Dakar bu manifestation amee bu ñu jàppee ni bu ñuy njëkk que xool mooy aspect jaata la sant wala baañ wala Sonko wala Bassirou loolu la ñuy njëkk a vérifier suñuy def interrogatoire question boobu la ñuy poser a posé boo leen ne nii laa sant rek immédiatement li ciy teg mooy dafa am yoo xam ne waratu nekk tabou et je veux que kuy Casamance rek nga décomplexé parce que c'est pas parce que ñu lay joxoñ ni rebel la que da nga war a am complexe dafa jot de crever l'abcès, décomplexé, parce que personne n'est plus sénégalais qu'un Casamance. Vous croyez que tous ces jeunes-là, dans la force de l'âge, working, am parce que un ak ragal àndul. Si tous ces jeunes-là étaient rebelles, vous croyez que nous avons armée bu si 5% des Casamançais étaient révélés, gisuma ku leen di comme si ça était ce que ça a été jusqu'à présent c'est que chacun d'entre vous ici se considère autant sinon plus sénégalais que pour la ou ou wala ou wala saint à la feneen personne ne peut vous expliquer du Sénégal Comme Macky Sall petits de nguur jarul te Sénégal dafa am nañ ko xamee mooy li bokk ñu tey soo seetee cousinage entre Joola ak Séeréer dara mënu ko dindi ci laa yoon bi pël noonu keneen ak keneen kon ce discours nauséa bo bi nga xam ne mu ngi koy porter moom jël ay nit solal leen ko dem tere yi di ko wax il faut mu may wax tous les vous ne m'avez entraîné entraîner dans son piège la Casamance n'a de problème avec aucune autre personne ou ethnie ou région du Sénégal mon point, du Sénégal doit doo un ay de masse. peut faut intégré en tout cas, chaque te soo la la région la plus cosmopolite du Sénégal de masse.

c'est la tolérance, c'est l'acceptation de l'autre à qui nous mel à qui nous bokk. Faut pas nous entraîne dans sa haine, parce que c'est un homme fondamentalement haineux. Il gouverne par la haine. Quand àndul ak moom tu es bon pour nous guider. Mais nous Sénégal pas ak fu ñu pas bokk. parce que c'est ce problème à Dakar.

de ce Sénégal nous n'avons de problème avec personne tous les Sénégalais sont des frères et des sœurs entre eux Un problème la ñu am te wax la Casamance a un sérieux problème avec Macky Sall C'est mon la qui cette année là, lan avons depuis qu'il y a un homme politique qui s'appelle Ousmane Sonko qui est de la Casamance et qui lui pose problème loolu rek la waaye nag Ousmane Sonko Ousmane Sonko Sénégal yi lii léegi yëpp ma àndal am ci kenn ku ci Casamance ñun ñëpp ñu waaye moom seedeel leen relation bi ñu am kenn ku ne ci ñoom pare na pour dem kaso à la place de Ousmane Sonko wala jël bal à la place de Sonko kon bu ñu tombé dans la déedéet. il faut qu'on mène le combat. Moi, ça, c'est une limitation de la C'est l'une des limitation de mes décisions. C'est l'unité du quotidien de ça. Un problème Parce que nous avons une responsabilité de dire. C'est l'unité idée du quotidien où il y a un certain problème là. On décide notre opinion. Et c'est pourquoi. li ko président Khalifa Sall waxee métti na trop sa doom daana munoo jot sa koor mais may leen ñu may leen ñu parce que mbir il faut mu leer seen face léegi avocats di may ñëw ci yoon bi ils sont en train de prendre l'avion pour venir maître Djibi Diagne maître Diallo wax nañu ñoom def nañu expertise ñun jël nañu expert ba que bu yombee noonu buñ leen loolu ñu ñaan ko laaj les ngeen lay déglu parce que c'est important pour que ëllëg dootuñu am sañ jël arme bi tirer sur extrêmement dégg naa ñëw nañu fii di def pression ci famille bi dem nañ ba ne am na benn chargeur bu arme bu ñu gaareeloon bi ñuy daw xale yi for ko ñu ne su ngeen leen joxul chargeur boobu ils vont pas remettre le mun naa leen waatal fii le corps ci jot parce que Macky Sall moomu réew mais bu leen subir pression du menace du xaalis léegi dama wax.

il est impératif que la vérité soit rétablie au niveau national comme au niveau international. Le pour il faut que nous situions les responsabilités parce qu'on on n'est pas des pigeons de la paix ici six ou cinq personnes ont été assassinées ici à Bignona assassinées c'est des assassinats

gâteau. Ouais, ils en avaient fait une obligation. Une obligation qu'il faut que l'Union Bopignon, tiens les familles, tiens les familles, donc on doit un point de presse pour parler au Sénégal. Donc, nous les gërëm bu baax di leen masaw waaye di wax ne bu soobee yàlla suñ ko traité que ko war a defee lii dootul am ci Bignona dootul am en Casamance te incha allah ci Sénégal Yeah. Halo, mikro. Adi, mikro. Minam, minam ñu mëne gaaw. Dañu jëm ci baal mu kaarañ ko prière fasora. Eh,